wa من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الشيطان الرجيم سورة واقعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت ألف لام fal yukrim dayfahu ku gëm yàlla gëm bis mu mujj ba nay teral ganam yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na jërëjëf sëñ Abdoulaye. سلم طوبى قال له الله ما اختار am na naar bu ko musalaa nax nga sëriñ bi na ko mu ne ko nax jinne nga sëriñ bi na mu ne ko nax malaaka nga sëriñ bi na mu ne ko loo sëriñ bi nag wa yaxluqu maa laa taalamuun siw na guulal ji xasiidak wa duxilal janna bayit wi jaalani llahu taala aaya mudiratan waliyaqaadal aaya wallahu aalam rekla dëgg dëgg daraanga allaaxira la am ku bëgg suturas àdduna dangay nangoo liggéey ku bëgg teraanga allaaxira dangay nangoo jaam yàlla wér na jërëjëf Love એમનું કરાવો bés ma déggee génn ma du ma may nawe. jërëjëf. ma man duma seetaan ministre bi ngir yàlla. xam naa ne topp ay ndigal may fulla. bu àllëgee yow ma xiyaama man bugguma kër. sama borom di e ma yee nan ma topp ma. la si yaram day tànn man ku ma bëgg it damay xool ay jikkoom bu seen la lut ma mun taxaar ku seen bi yéen man ku ma bëgg it damay xool ay jikkoom bu seen la lut ma mun taxaar ku seen bi yéen xëy na mënoon na bañ a nekk te xam naa ne gënalu ko waaye nag ñu ne joor rek lañu am muy ku ci nekk fa nga ne nga ñaanal ko yàlla yàlla sàmm ko te aar ko te musal ko guddal fanam wéral ay cëram yéeneem ci toolu lislaam bi yàlla yeggale ko waaw ndax ñun ci daara ji lañu nekk man ni ma koy waxtu mu ne rek man jéemoo fenn wallahi azim woon na ma lu baree bare message ma ma tontu ko léeg-léeg mu ma wax ak man man naa ne mosuma ko woo wala du néew la gannaaw loolu keroog bi may woon ni ma dafa bëgg ma ñëw fa yónnee sa borom mu ñëw bu fi jël si ma ñu dem këram man ak sama mag ñoo ànd ci yàlla ñu yëpp ak maa xam la ba mu ñëwee lan ma mooy li ma yow naa ni boole bi yàlla boole dëgg la ndax ni jamono naqaree ma ni la ñëw si ma xamoo dañ lay rey si xamoo dañ lay kër naka xamoo lenn dana ko wax dafa am loo xam ne xol moo ko yëgal seen biir waaw ah, man déwuma ci yooyu ku ne xam na ni man déwuma ci mu def teraanga lu bari wax dëgg yàlla daara jii war na Seexul Xadiim ba mu fi ñëwee dam fi andi lii sëñ Baay Góor doon wax léegi moom jëfal na leen ko ci bari ki démb nii ba nanga nii seet bi daara ji jëfandikoo li mu yàlla amuñu lu jëm ci digle nag ceeb ak lu doog a di teewoo ah loola nag ku koy def amoo fayam soxla woo loo ko jox wax dëgg yàlla yàlla na nga ah nit ñi teewee na lii alxuraan tax leen fi indi ñu ne ci weeru koor sañ ngaa ñaan nag ku ne fa ne ñaan bisimilah. waaw jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant bu baax rek ñu nuyu mbooloo mi yëpp di leen siyaare bu baax di leen bu baax a baax si nuyu bu bëggal kër yi di nuyu itam léegi daara yi àndal may seen tànn ànd ak moom ci liggéey bi ñu ci daara yi jàppale ndongo yi waaye seen defar nga xam ne amul payam moo tax ñu ci askan bi ñu nuyu bu baax a baax a baax ñu waa jur ba mooy seen saal yi ak ah, su ko rajo bu ñu ko fay ndax mu toll nga péréb ko def sa doom bi defal la mu ñu koo fay

ak nataal boo xam ne moom lañ fa yéene tàllal ci mbooloo bi waaw nataal bi moom eh. ah nataal bi moom gis naa fi jëmm ju tedd ji di Serigne Saliou Mbacké di Serigne